fii ak 6 mois da ngeen di jënd carnet de santé ñu yëg ne ëmb nga waaye daal bu ngeen takkee jabar janvier septembre ngénte wu leen du ma leen tëj kaso dama leen fetal ngeen dee man ngeen dem na kum neex na def ñu naa kii dafa dof ah waaw <laughs> moo tax góor gu nangoo am jëkkër ak góor gu bëgg takk jabar ju góor lay xew ca diggante ba day yàqum pénc di yàqal nit di yàq ak nite waaw moo ki mbokkam dafee am mbokkam mu ñu tudde planning familial am mbokkam la bu dul doomi ndeyam it di doomi bàjjanam planning familial benn am na fi mbokkam ñu wax avortement médicalisé am mbokkam la muy ña muy ñetti mbokk meneen mbokk mi mooy jigéen ju bëgg jëkkër ju jigéen ak jigéen ju nangoo doon jëkkëru jigéen mi moom moom it ci mbokk yi la bokk defe naa siyaax lañ ko xuma waaye am nañ meneen mbokk nag mooy yéex gi <laughs> yéex a sëy góor gu am trente cinq ans te dëkkul jabar maa ko gis Dakar waaw gaa yi xam nañ ne foofu la ñaar fukki at ak juróom oustaz daam góor daa war a takk su amee su amul su ko mëneek su ko mënul defe naa Brescia laa ko waxoon kon yéex a sëy googu ci mbokki li ñu bëgg waxtaanee la bokk waaw ka ca tege mooy njàng mi dul jeex mukk juddu di jàng ba xëy màgg ndax xam ngeen jigéen dafa am période boo xam ne bu ci tollee njurum doom tàmbali bu ko weesoo njurum doom weesu léegi nag bu ñu fexee ba mu ne ci njàng mi ca ba muy nekk lu ndaw ne ca ba fa muy mujj mooy daanaka mën a pos ndax di jàng ba am ci jigéen 10 ans nga dese muy fukki at te fukki at yi bu la ci yàlla baaxewul benn doom nga ciy am ndax sa doom ji njëkk day fekk say organe màggat say cër màggat sa deret màggat sa yuur màggat boo ëmbee am problème te boo onkee ñaari yoon docteur bi yëgal ci taabal ji très dangereux il faut ñu opérer ko daal lay opérer docteur bu jigéen bi tiim la ne la loo xam ci planique boo fi ambaatee très dangereux de nga ne defal ma doo ko tey danga sonn ñu defal la donc benn bébé ngay am ndeysaan fi deuxième bébé ñëwee fekk la nga am 45 ans nga mën a pause yàlla nu yàlla yërëm yii ci mbokk yi la bokk meneen mbokk mi mooy li ñuy tuddee libéré jigéen ñi yewe leen ci buum yi leen yew bàyyi leen ñu dem wala ñu fexe ba mu moom boppam ci koy yor boo ko yoree mu dem boo ko yorul mu dem te loolu nag day jafeel penc mi yii nag bu ñu àndee ñoom ñëpp li muy teg kon mooy na fi na fi famille jógee na fi famille jógee ndax lii bu demee ay téeméeri at ci kanam téeméeri at yoo xam ne góor jabar ju góor lay takk jigéen jëkkër ju jigéen lay am ku ëmb ñu avorté ah? ah ñenn ñay jàng ba màggat dama ne loolu buy dox ba am téeméeri at ci kanam mën naa jural am penc ak njabootam des ginnaaw wala muy deex sama beneen tomb mooy góor jigéen jokkaloo googu am diggante góor a góor ci jëflante dafay lor ak wér gi yaram lu samay wax ak docteur Mahmoud Hadjazi moo ko wax ci téereem bi tudd euh, amradul jinsiya wa tanasuliya moo ko ca wax ndax la yonent yàlla lootu waxoon nitam ña sama doomi jigéen yaa ngi nii hunna adharu lakum baat boobu lu jar bàyyi xel boo ko fi bàyyee nag fas yéen na yow nga ne sa bànneex yaa ngi koy amee ci góor ni yow lu ne mën na la caa fekk lu ne mën na ko caa fekk moom waaye lu ne mën na caa fekk pénc mi tamit lu ko cay fekk la ca jiitu mooy feebar boobu nit ñu tudd ci pénc mi di ko tuddee faqdul manaa wala ñu ko tuddee sida ci ci ci wax ju jege mooy ku xas am feebar boobu yi daan taxaw ci saw yaram di xeex ak feebar pour génne leen moom yooyu lay xam nga soldaar boo xam ne euh, dafay xeex ay soldaar am lu ñëw xeex ko moom ba mu faatu soldaar ya fa doon xeex dutuñu fa nekk bay mën a xeex loolu daf koy joxe te bu xasee jox kenn nag maanaam bu feebar ba bu xasee dal kenn kooku mu dal daf koy jox keneen kooku daf koy jox keneen ñu koy joxlante rek muy gën di yaatu yàlla nu ci la musal musal ci sunum pénc bu ñaaral bi ci feebar yi muy joxe mooy nit koo xam ne yi ko yàlla dencal téye ko sidit yi koy téye day dañ xam yàlla daa ma sa saaga saaga bu doy waar ci suuratul xiyaama mbakke cheikh cheikh islam xaaj ibrahima rek laa gis ba ci masaana àgg moom ne naa ko wax te jàll mu ne ko yàlla saaga saagal wàññiwul dara yàlla dafa doon wax ci nit ñi nee na dafa am ñuy taxaw di di discours moom yàlla di ko weddi mu ne ah yàlla mu ne ah nahnu xalaqnaahum wa sadadna asrahum yàlla mu ne mu ne waa ji li nga añe taxaw ci kanam nit ñi di wax te yàqoo sa tubay ji man mii xanaa saaga na saaga na de dégg li ma wax rek nahnu xalaqnaahum wa sadadna asrahum wa idaa shi'naa baddalnaa amsaalahum tabdiila yàlla mu ne yow mi taxaw di discours di ma weddi su ma neexoon li nga añe génn fi nga taxaw surtout ba yàqu nit ñi bàyyi <laughs> mu ndox mi nag ndox mi nag ndox mi nag ndox mi nag ndox mi nit ki naan di taxaw discours yàlla di ko weddi bu neexoon yàlla fi waa ji taxaw ndox mi tuur ah bu defee protocole yi ñëw rek lay sànni guuf ko yóbbu waaw ah, benn président ca arabia daa ñëw di wax rek ndekk braquette bi daa ubbi ko waaw ne camarade ayal xudur am ku ne ko kilifa gi sa tubéy ji de tëjoo baraake bi loolu ko journaliste baax mu ne ko non jarul tëj parce que ñun liñ def lépp lu transparence la ba liñ jiital sax dañ leen koy wan <laughs> xam nga arab dañu mën a wax wax wax waaye loolu rek fi ne sëñ Mbàkke tas nam pinc ah, ah, ah te nit a ngeeg ay yuut yuut bu neexoon yàlla sidit gi ko téye dañ yuut yi tàmbalee ñëw dañuy fomp ba sonn rek bàyyi la fa dem baqata nag waaw ah, ah, ah. léegi nag feebar li ñuy tuddee góor jigéen maanaam góor guy jote jigéen ak jiite wala góor guy jote góor ni moom wala góor gu ko nangu day tax sidit yooyu doon téye yooyu yàlla bàyyi sidit yépp ndax jëppi leen ñoom ñaar lépp yi tuuru lépp yi tuuru bu ñetteel bi ci feebar yi mu joxe mooy góor guddul soxlaati jigéen waaw góor guddul soxlaati jigéen léegi jigéen dootu ko mën a bànneexal góor ni moom moo koy mën a bànneexal waaw Oustaz Dame réew mu toll ni senegaal ñu am ñu am benn manqué manqué jëkkër jëkkër yi doyuñu bu góor yi bëggee jëkkër kon fu ñu <laughs> loolu feebar la encore ar raxba anil mara te bu feebar baaxul ci pénc boo gisee ñu daan wax naan warigar warigar diw dafa takk diw amel na ko ay warigar lan mooy warigar tafsir Moussa Gassama warigar gar mooy gaynde gaynde gi loo ko war pour mu jot ci ndaw si ñu rëddal ko ko mu dem nawetaani bu ñëwee indi ko ñu jox ko ko mais bu fekkee góor soxlaatul loolu feebar dugg na ci penc bi